sama teewaay ci Tiwaawoon waru jaaxal kenn sama Seydi Hadji Malick rek laa yaakaar ginnaaw yàlla yonent bi kon fi teewee damaa war a teew fi ma war a teew laa mhm. gi tey jii jullit yi naka lay doon. Ah, xam nga nag ñun ay jullit yu xeebu lañu rek damay duñ sax mais damay ñaan yàlla rek jàmm jàmm ci réew mi jàmm ci xol yi jàmm ci xel ba ku ne mën a yéene sa morom jàmm ndax jàmm ci la lépp xëy yàlla nañu yàlla defal jàmm. ci guddi ci bi ci at wii ak at yi ñëw yëpp ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jaamu jooju réew mi mu mel ci mu ñaaw réew mi ni mu mel te moo suñu mag ñu baax ñi bàyyi lu ñu fi loolu lépp tolloo rek ak dayoo rek ak li nga toll rek ngay def lépp tollu la rek ak dayoo rek Halima Gaye nga xamante ni moo jëm ci yenn ci ay euh, série yenn ci sa ëllëg ci wàllum euh, téléfilm lak lañ ci mën a xaar bon bu amee yeneen ñu ñëw rek incha allah ndax tourné naa ak Saneex Ngéwél Central tourné naa Njabar yeneen a ngi ñëw incha gis vie artistique ni demee ak ni des fois violence bi ci sévir fan gis mbiru Aziz Dabala tey bu ah ñu nag mbiru mbiru mbiru rek yal na leen yàlla yërëm Aziz ak Waly yal na leen yàlla yërëm te xare leen arjana yi firdawsi gën a kawe lu am yàlla fekkee na yal na yàlla dolli sutura may ñu wér gu yaram ak gudd fan ak mujj bu rafet musal ñu ci musiba ak balaak pexeb noonu ñaar ñooñu dem yal na leen yàlla yërëm te xare arjana xajoon nañ fi bon c'est la vie àdduna moom nii rek la demal rek demin ba Euh, moo dul neex rek peut-être moo neexul wax dëgg yàlla mais ñun ñëpp ay dem donc yàlla nañu yàlla yóbbu ci demin bu rafet ñoom aussi seeni famille maa ngi leen di saw bu baax a baax euh, di leen jaale bu baax a baax métti na trop parce que ay xale lañu en fait donc yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen aljanna di saw bu baax seeni waajur ban message ngay sa xarit nekk ci TikTok bi ak des gis nañ ku leen jege ngeen ak échange yi ngeen di def ci commentaire yooyu. TikTok bi waaw na rafet rek ñu bàyyi yàkkante bi bàyyi tafante waxante lu ñaaw tey su ma amee lu ma la war a wax sama nit naa la woo waxtaan ko ak yow ñu waxtaanee ko ci jàmm ci njekki ci sutura naa bañ yegg ci réseau yi c'est très important ma amee lu ma la war a wax naa la woo ma wax la ko ñu waxtaanee ko ci njekk parce que balaa ñoo yegg ci téléphone yi man ak yow dañoo am relation donc dañuy sàmm relation yi sàmm image yi parce que réseau lépp lu ci dugg rek fa lay res dootul dañ c'est lu a bàyyi xel la parce que nit ñi dañoo defe ne TikTok bi loo ci dugal parce que boo commencé live rek ñu bëri ñu mel ni mën a ngi toog capturé donc lañ fa nekkee donc loolu dafa mat a bàyyi xel du coup donc bu dee sama nit nga ma def la lu ma la war a def woo ma nga waxtaanee koog man su dee maa la tooñ dama lay jéggalu ñu waxtaanee ko jubóo te du yegg ci réseau yi nañ bàyyi suñu bopp yi ñuy weer ci réseau yi c'est pas intéressant vraiment ñu gis la nit boo xamante ni ci dara TikTok dañ di ay way ay fecc ambiance dégguñu la ci dara te mu doon loo xam ne aussi ku ci nekk war nga sàmm sa image parce que image mooy nit. waaw man nag xam nga lakkkat laa man bambara laa je suis ba ma naan dendee je suis fière dëkkuma Dakar <laughs> Tamba laa dëkk lakkkat laa yarinu shérif laa am sama yaay shérif la man ambiance rek damay ambi rek xeexuma fuloo ma jotew ma kenn damay ambi rek. waaw am bi rek adduna bi dafa bëri stress donc nañuy am bi di fexal xol yi des fois nga gis nit buy ambiance doo xam lu tax muy ambiance jéem a lijjanti li ci ginnaaw moo gën. voilà yi noo koy dundee ci TikTok bi ak body shaming bon man body shaming garaawul min naa ko man man dama am mental bu dëgër man. man je sais que Pata nga ma koy wax kon man mi ko def xam naa ko mais Pata tooy bu jongoma laa donc boo ma koy waxal man sama jëm bopp xam naa ne Pata tooy laa Pata bul ne Pata rek teg ci Pata ba pare teg ci jongoma donc du coup soo ma koy wax du ma metti sam me fait rien barke El Hadj Malick mais des fois nga gis commentaire yoo xam ne day jar nga tontu waaw ah, des fois dama koy def damay def yooyu mhm. merci sa je ci Tivaouane ñu ngi fii ak artiste boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci wàllum ambiance ci wàllum bëggal nit ñi mu di salaam Diallo Salam ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di nuyu leen ziar ci bés bu tedd bi nga xam ni képp kuy julit tey sa xol war na ndax sangu-sang yi mooy bésam ñëpp nag ñu ngi koy célébrer mais plus particulièrement fii ci Tivaouane chaque année. fi leen koy féetee ñoo leen di ziar ci bés bu sell. alors taalibe Serigne Saliou ñu gis ko tey ci ëttu Maodo Malick si lan moo koy expliquer. lu war la ndax Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul dafa wóolante woon lool ak Sidi Hadj Malick ñëw na fi ba téye tànkam bi rudd ay armeel ni def naa ko lu mel ni armeel leen ca Touba muy fii ci kër Cheikh Marouba Gueye sunu maam Cheikh Marouba man nag. dama am histoire ak Tiwaawan ndax man waa Tiwaawan laa sama ndey fii la juddoo ndeyam fii la juddoo sama ndey ba mu génnee àdduna fii lañ ko denc sama maam ba mu génnee àdduna fii lañ ko denc kon nag man kenn mën maa génne Tiwaawan waaw. gis milieu artistique bi temps yi ngeen dund tiis bu doy waar muy Ndour Aziz tey boo si doon ñëwaat ban conseil ngay jox ndaw yi ak naka nga ko dundee yow en tant que artiste. di jaale la famille de Aziz Dabala di jaale képp koo xam ne génn nga àdduna rawatina sunu doom yi nga xam ni ñoom ñoo des ci ndox mi di leen encourager di leen wan ni xëcc bu ñëwul dina mës a dikk ndax ñun ay jeunes lañ. yaroo Sénégal màggee fi tekki ci réew mi donc di ñaax rek gouvernement bi ñu wax ak seen nattangoo yeneen réew mi yeneen réew yi ñu yombalal visa toujours ma way ko toujours ma ko donc maa ngi jàll famille Aziz di jàll ñëpp euh, euh, loo xam ne nag dafa nekk en cours judiciaire du ma ci mën a avancer. mais ko dundee bi nga yëgee mais képp kuy doomu aadama netre un xam na ni loolu mënut neex kenn mun ta neex kenn euh, mooy li ma la wax rek comme que dafa nekk euh, en cours juridiction ñoo ngi xaar justice def seen liggéey mais maa ngi jàlle ndeyam di jàlle bépp fansam di jàlle ay sœuram ak yëpp pare naa fa dem incha allah comme ni ko ñëpp defee dinaa dem jàlle ji incha allah. mu ngi gëj a gis production wu Salam jàllo est-ce que mën nañu xaar retour am waaye tamit ñu xaar salaam Diallo woy waa Kër Seydi Aji Malick. Salam Diallo génne na produit xam naa yëguloo ko hmm. waaye boo demee ci YouTube bi tàppe live performance Salam Diallo ak Prince Art album baa ngi ci hmm. Salam Diallo tàmbali naa joué tous les mercredis mi ngi ni boîte bu ñuy wax La Rose Salam Diallo mi ngi joué à sali tous les samedis donc maa nga fa ma ne woon